anam boobu euh, dañoo amoon député bu ñuy wax Blaise Diagne mu nekkoon nit ku ñuul juddoo Sénégal ci Gorée wala Ndar di der bu ñuul ci ndey ci baay waaye di tubaab ci ay ay këyit ci français ci këyit ndax booba lu jiitu loolu ñun suñu maam yëpp ba ci man mi wax ak yéen suñu maam Seydou Ablaye Fall Ndar nationalité français la yoroon ci lu wér ba ba kii ñëwee sax ñu ne ñoom suñ maam suñ Fallou Fall ci xeexal France ci la def yoroon nationalité français euh, dafa am loo xam ne nag suñ ci teel te wax euh, mën naa indi xamoon naa ko waaye dañoo waxoon si waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko may lancer appel boo xam ne dama koy jëmale ci euh, ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi. ñaa ngi ci saat réew mi ñu seen xel ci yu bari ndax euh, euh, Blaise Diagne ñu ma ko waxee jaar na fi booba euh, moo nekkoon député à l'assemblée de France toogal fa Afrique yëpp Afrique occidentale France yëpp mu toogal ko fa di jar bu ñuul lu jiitu loolu dafa am lu amoon loo xam ne lu ñuy wax traite traite négrière ñu nit ñi fii ci Afrique di leen yóbbu Amérique ak Europe di leen di leen jaay di leen liggéeyloo loolu dem ba ay ci mille huit yi loolu dakk ñu dem ba indi li ñuy wax démocratie loolu it bi mille neuf cent soixante bi ñëwee comme ni ma ko waxee boobu Blaise Diagne njëkkee nekk député jiite Sénégal mu jóge fii Lamine Gueye nekk fi Lamine Toura mu jóge fii président Senghor nekk fi ak Mamadou Dia ñu gis loolu cinéma li am ba xaajale ko am ci la ci la ci la Senghor nekk président ci Sénégal Mamadou Dia nekk premier loolu ñu dem ba bu Senghor jógee su ñuy dem mu bàyyi jox ab Diouf mu eggale ñaari eh, at yi ko dese mu jóge fi dem élection ak Abdoulaye Wade boobu fi Abdou Diouf ko ak internal ak démocratie loolu Abdoulaye Wade bi ñu defee douze ak démocratie waaye dafa loo xam ne moo ñu tënk nii yëpp muy doon gim doon sénégalais ak juddoo gim juddoo ci réew mi moom loo xam ne nag dafa taal ay réew yu bare bare bare nag yi alerte nit ñi rawatina ñi nga xam ne ñoo ŋànk loolu ndax fu mel ni Côte d'Ivoire soriwunu amoon na affaire ivarité loolu euh, boog boobu boog boobu moo ko woon boobu ñaa la ngay nekk ivoirien euh, cent pour cent ci ndey ci bàyyi loolu bëgg boobu ñu ngi ko indee Alassane Ouattara bii nekk tey président président Côte d'Ivoire Euh, dañoo wax ne benn parti la nekk Burkina benn parti bu nekk Sénégal euh, kii euh, Ivoirien loola juróon ay coow yu bari bay ci xewoon yëpp xew bi am loo xam ne nag dafay indi suñ ci teel doo wax affaire bodd compte ci biir xeet ndax Sénégal li ko sos ay nit ñu dajaloo jógee ci ay réew donc ku weex ku ñuul ba loolu moo sos Sénégal ba tax Sénégal tudd Sénégal Sénégal ay naara ngi fi ay bambara ngi fi ay pël ngi ngi fi ay saraxule ngi euh, lu ne ngi fi ay nigérien ngi fi ay ay burkinabé ngi ngi fi koo ci topp euh, ñaareel maamam mu génneel la beneen nationalité lëñbët nag li ñuy wax lëñbët mooy koo xam ne leer na lii ko waaye wóor na ne kii moom lii loolu la euh, bàyyam Sénégal la maamam di sénégalais maamaatam di sénégalais nga bëgg koo xañ sañ-sañam loolu euh, euh, lu ñu war a seetaat la ba nga xam ne fitna ji muy indi ji muy juri ëllëg da ko dul jar ndax war war des nañoo mën a tënku ci euh, niñ tërale woon sarte yi ba képp koo xam ne doy nga mbooloo bi bu la mbooloo mi gisalee ñu teg la fi am na fi tey ñoo xam ne tey li ñuy wax double nationalité ñii ñee nationalité américain ak boole ko bu sénégalais te xam nañ seen bopp kon loolu li ñu war la am na fi benn benn maire bu taxaw ne moom yor na yor na ñett nationalité yor na bu France yor na bu yor na bu Sénégal yor na bu Amérique am na fi ay kilifa yoo xam ne xam naa ci wér yi ñee nationalité américain te kenn waxu du ngeen mën a du ngeen mën a nekk ci gouvernement wala dogal bu mën a jiite jiite nit ñi kon nañu xool li nga xam ne suñ ko defee jàmm am ci réew mi démocratie am lu toll ni doomu Abdoulaye Wade mënuñ ko wax ne ko doo sénégalais te Yérim Mbagnick Wade jur ko Yérim Mbagnick Wade moo jur moo jur moo jur Abdoulaye moo jur Toola Wade mu jur Abdoulaye Wade Yérim Mbagnick Wade jur si Abdoulaye Fall Fall Wade mu jur si Abdoulaye Fall Ndar kon da nga nangu kenn kuy kuy kuy kuy kuy discriminer suñu mbokk Karim mbokkum sëñ Modou Ablaye Fall la mbokkum sëñ Ablaye Fall la waaw ñun nag waxuñ pour politique waxuñ pour lenn waaye dañu bëgg réew mi mën a am sëslaay bu dëgër nañ ko tabaxa woon loolu lañ bëgg mu continuer ndax suñ suñ si dugalee yii rek affaire xeet rek ak affaire waaso réew mu tàkk affaire xeet ak affaire waaso moo ko taal gisoon nañ fi la xewoon Marcoli waa affaire waaso baaxul affaire xeet baaxul waaw te sunu borom amul fenn ci alxuraan fu mu waxee di wax waaso umma lay wax peuple waaw kon nañu jéem a dajale te dama gis ñu gind ko ci kii bi dañuy wax fois une une peuple kon dañu war a nekk benn bu nekkee umma benn umma nekk peuple luñ taxawal dinañ ci mën a am ndam waaye bu ñuy bëgg a jël jël sarte yi di ko xeexee loolu dafay doon loo xam ne li muy jur bu ñu xoolee tey jii maanaam euh, euh, euh, football sax man du ma jox waaye bu ñu xool tey fii réew mi toll ci wàllu football bi ñu xool ngeen xool seen seen équipe nationale bi ñaata ñaata doomi France ci nekk ñoo xam ne ay nationalité français lañu yor yor nationalité sénégalais mu mu leen bu ñu xoolee ñaata sénégalais la seen i njaboot juddoo ci biti nga xam ne tey bu ñu xaajoon Sénégal tey xaaj ko ci digg xaaj bi li juddoo ci biti ñoo ëpp foofu li juddoo ci biir Sénégal bu nekkee 17 millions nga xam ne 17 millions habitants yëpp boo boo jëloon 10 mën ngaa wax ne double nationalité lañuy wax kon loolu day nekk loo xam ne euh, maa ngi ñaan daal ñu dellu si waat xel yi ak xalaat yi xool loolu naka lañ koy tëggaate ba jàmm mën a dellu si ci réew mi yëpp ñaan yàlla na ñu dem ci élection yoo xam ne yu dal lay doon yu ànd ak jàmm ak salaam euh, ku kay ñu jox la réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah